asalaamaaleykum mbokki xarit ñu seetaan suñu émission homme politique ñu dalal euh, Birane Bay nek euh, responsable ci euh, APR ci Thiès Est bokk ci COSER muy convergence des jeunes républicains bu Thiès dañ koy bàyyi rek mu def présentation ak mbokki xarit ñu seetaan ci Thiès Info ak Thiès TV suñu Birane asalaamaaleykum. waaw euh, mu mel ni mbooloo maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di rafet rafetlu tey jotaay bi ñu fi teewal di sant sénégalais yi di sant waa kees ñëpp di wan ni tey dañ fee daje pour émission gërëm ci bu ñuy wax dañuy wax euh, Birane Mbaye képp euh, lépp loo xamante ne mu ngi koy liggéey ci politique nekk na koo xamante ne ñu bëri dañuy jàppe ni borom xam-xam la ci politique. jamono yi ñu toll yow yaa lëmbe dëkk bi ci ay wàllu loo xamante ni ay kii ñëpp war rek nga ñëwaat ci lan moo waral émission kii kii wu situation politique xam nga situation politique boobu maa ngi dégg coow li dafa bari ñu naan Birane mbay ak Siré Dia dañoo am ay problème man jàpp naa ni Siré Dia amuñu poroblème ndax sama papa la ndax tey jii féetee na ma foo xamante foofu fu ma dem dama koy wax ndax mu nekk nit koo xamante li ma njëkk am ci xëy ci biir parti bi moo ma ko ñu ko jox kon sama papa la te nekk tamit sama responsable ci politique ndax jàpp naa ni man activité bu ma mas a taxaw moo ma ci taxaw man nekk ci moom féete ci moom te féete googu ma nekk ci moom du dañ ndax jàpp naa ni sama papa la sama lépp la te saa su ne maa ngi ci féete bi ndax coow li nag bari woon na nit ñi naan Birane ak si Dia dañoo am problème amuñu benn problème sama papa la di wax ni kees waaye nañ xam loolu man ak moom amuñu benn problème tey gise nañu waxtaan nañu te jàpp naa ni politique pare saa dina am ay erreur te jàpp naa ni dem naa ni tey jéggalu naa ko wan nii moom amatul ma mayatuma kenn ku may taxaw di ma wax naa ma waxal lii si rajo waxal lii si rajo ndax yàpp naa ne ay erreur woon te loolu jeex na. bis ni ki tey ne ñëpp xam ni Birane Biraanu si rajo la. biraan doomu si rajo la. Birane day liggéeyal si rajo pour ñu jàppale président Macky Sall pour mu am deuxième mandat ci dëkk yi. mais Birane euh, lan moo la mel autorité boobu ci biir parti bi ba nga xamante ne bu ñu waxee ñoom Augustin Tine ñoom Thierno Sall ak ñeneen ñeneen ñu ne booy bi nekk na koo xam ne euh, c'est un fin politique. Mm-hmm. ci loo xam ne stratégie lan moo waral loolu. non xam nga lu waral loolu ñun dama am lu ma gëm. mooy man président laa gëm kon kuy jàppale président Macky Sall jàpp naa ñun dañ cee war a taxaw ndax man yàlla dimbali na ma Siré Dia mooy sama leader na waaye yàlla dimbali ma ci parti bi am naa ci ay xarit sama xarit yooyu nag ku ma ci invité dinaa dem waaye man dama am génn gëm-gëm te politique bi may gëm mëne mooy président Macky Sall am ndam te loolu dama ci ànd ak la DG de la poste Pape Siré Dia ndax moom ni mu taxawoo président ji commune bi nekk na loo xamante ñun dañ koy rafetlu ndax ndaw ñi moo leen jàppale ci emploi mi ngi jàppale président ci bépp social boo xamante prés ndaw ñi woote nañ ko ci dëkk bi ak ñeneen ñoo xamante bokkuñu APR te loolu la président soxla te mi ngi ci te loolu dinañ ko ci accompagner ànd ceeg moom ba tey jii deuxième mandat président Macky Sall ci moom lañ ko yaakaar te dinañ ci accompagner loolu ànd ceeg moom. Mhm. dafa bëri ci euh, ndawu APR yi nekk fii ci cees euh, dañ leen di gis ñu yëg ci ay jakarta maanaam jakarta yi nga xam ne juróom fukk la wala ñeent fukk ñu nekk daal ñoo xam ne dañu ne sax waa APR seen ndaw ñi dañoo ndóol ndóol boobu te ay responsable la ngi fi yore ay post kilifteef yooyu yéen naka ngeen jàngatee situation boobu bi ngeen faloo ba léegi noo xam nga ndóol bi ñuy wax loolu loolu wax la rek ndax tey APR jeunes yi bëri ci parti bi Siré Dia moo leen jël dugal leen poste ñuy liggéey te loolu ferte la boo xamante ñu dañ koy tiitoo. mais Siré Dia kese nekkul ci Thiès. non nekkul ci Thiès waaye moom moo fi jàppale président Macky Sall ndax moo yor direction boo xamante ñëpp dañ cee xaj te mi ngi ciy tàppale président Macky du xool ñoo xam ne sax bokkuñu pas APR mu leen di jàppale comme loolu mu loolu muy def président loolu la soxla te nag dañuy ñaan li muy def responsable yëpp nañ leen nañ ko dem defi ji ni moom ndax bari nañu ndaw ñi bokk ci parti bi te amuñu xëy man da leer na ma ni si ndaw bu amul xëy boo demee si moom soo ko waxee dina taxaw ci xëy te dina la si jàppale. Mm. mais tey bu ñuy wax euh, c'est parti APR dañuy naan dafa bëri ay sensibilité mm. maanaam ku ci nekk da nga ngemb sa mbër rek ne man kii laa àndal tey ànd bi sire kese nekkul ci Thiès. Euh, te am na fi ñeneen ñoo xam ne yor nañ poste yu gën a sax euh, dëgër yi nga xam ne si yor na ko yéen tey bu ngeen di wax président de la république par rapport ak cër yooyu yéen yi ndaw APR waaye tamit jigéenu APR. lan ngeen koy wax. ne lu ñu koy gën a wax mooy ne gën dooleel Siré ndax Siré Dia tey jii wax ci politique emploi moom moo koy defal président Macky Sall lañ ci soxla nit ki buy yëngu ci dara day fekk mu mën cee door kon nag moom dañ koy wax ni président ni ko gën a dooleel gën a xam ni liggéey bi mu soxla. Siré Dia mu ngi ko koy mëneel di ko ko defal di jël ndaw ñi te loolu dañ koy rafetlu di wax ne tamit président Macky Sall na gën a jàppale jigéen ñi gën leen a taxawu ba liñ bëgg ci biir dëkk bi ñu am ko waaye nag dañ koy xamal ne ko Siré Dia jiitu na fi te mi mi ngi jàppale jigéen ñi di jàppale ñëpp ku am problème soo demee ci moom mu la ko te lool dañ koy rafetlu loolu la ñuy xaar ci leader yi nañ def ni Siré Dia ñëw wàcc ci liggéey ci loolu pour jàppale président Macky Sall. tey bu ñuy wax euh, maanaam base u APR Euh, ci biir euh, ñetti commune yi nga xam ne ñoo ëmb ville bu Thiès euh, base bi tey kan moo ko gën a maintenir ba ñu ne bu bu ñu waxee tey tiitaange du am wala nañu renforcer kooku la ñuy renforcer kan la. xam nga tey ji base APR bu ñu koy wax ndax jàpp naa ni kenn mënu ko wax te doo doo di ci génn si rajo ndax li li ndaw ñu soxla moo ko def muy emploi. te tamit ndaw ñi ëpp ci parti bi da leen a taxawu jàppale leen kon de bu ñu leen base moom la ndax moom moo def lu concret ku def lu concret nag ndaw ñi yow la ñuy àndal ba ci jigéen ñi am na loo xamante ni leen koy defal ko tamit loolu muy def président tax muy def ko moo tax nag ndaw ñi ak yi ak femmes yi ku ci am su looy taxaw ci moom ngay jiitu mu jàppale ndax moom mooy taxaw ci président côté boobu ci biir dëkk bi loolu moom lu leer la lu am la. dafa am léthargie bu amoon ci biir APR bi ngeen perte élection locale yi 2014. ba quinze bi ñu dugg bi ñu weesu dugg ci 2016 muy référendum bi am na loo xam ne dessiné wu na maanaam nekk na ay résultat yoo xamante ne ñu bëri na nañu yenn leaderu APR yi ñoom ñoo tëdd moo tax ñu ñàkk commune bi. non loolu moom jàmbaar la ñun est bi moom dañuy gërëm Pape Siré Dia déjà de la poste ndax li fa jot am jàpp naa ci moom. moom mooy ciy payam ndax moo ci bay waaram te loolu dañ ko ciy rafetlu ndax ba jàpp naa ni élection yi bañ dikkee mooy yeeg yépp moo ko teg ci taabul bi di si soutenir ci président Macky Sall xaaru ci kenn kon dañ koy wax ni loolu moom suñu leader la te mooy suñu kilifa dañ gën a taxawal loolu ñu gën a dem pour gën a taxaw président côté boobu pour ñu xoole ñu ñu ñuy bëgg a jàppale président ñu taxaw leen accompagner ci loolu te moom moom moo ciy njiit ndax mooy suñu leader te mooy taxawu président de la république. Euh, bu ñuy xool APR dafa commencé yaatu maanaam am na jigéen ñoo xam ne dafa ñu rentré politique. dugg ci biir APR ci fan yi ñu génn muy Ndeye Tické nekk ci commune bu Thiès Ouest ak tamit Ndeye Awa Mbaye nekk commune bu euh, Thiès Est yéen naka ngeen gisee rentrée politique yooyu. non loolu lu ñu ko gisee édition la ndax jàpp naa ne ku ñëw di jàppale président da ko war a ibbil bunt yi kon ñun loolu dañ leen di wax ñoom tamit ibbil nañ leen bunt yi nañ ñëw gën a nekk ci tool bi ñu gën a bay pour président am ndam. loolu rek laay wax ci côté boobu. Mhm. tey bu ñuy wax dafa bëri ay activités xamante ne ndaw dañ ciy woo yenn leaders yi mais duñu wuy si. Mhm. yéen en tant que ndaw ñuy xool buñ comparé COSER ak UJTL dañuy gis ni ndaw ñoo ñooñu malgré nekkatuñ ci pouvoir tey ñun ñoo gën a taxaw politiquement que yéen ñi nga xam ne yéen nekk ci biir pouvoir bi loolu lan ma ko waral. non xam nga loolu lu ko waral ñun tey ndaw ñi. ñun dañuy dañuy remercier DG de la poste ndox tamit activité bu ñu man bu ñu amee moom bu ñu ko ko waxee da ciy taxaw. activité nan non bari na hmm. ay activité comme tey ji ñun war nañoo mën a dem tey ci terrain bi di wàcc def ay débat te bu ñu dikkee wax ko da ciy taxaw ndax xam na ni moom président moo ko ñor bari na ci lu ñuy def loo xamante suñuy activité la loolu bu ñu ko ci waxee da ciy taxaw jàppalañ ji xoolul dara ndax day xam ni ndaw ñi président moo leen ñor te loolu mu ñu ci accompagner te loolu dañ koy wax ni ñun tamit bopp ku bëgg. loo xamante tey ji yaa ngi ko bëgg pour président Macky Sall jëm kanam moom boo ko woowee dina la si jàppale te dina ci taxaw ndax loolu moom président ko tax a jóg te président lay jàppale te jàpp naa ni jàppale président may tey moo ko may li mu am ci biir dëkk bi te loolu dañ ko ci encouragé mu gën koo def gën a la jàppale président Macky Sall ndax président moo ko ñor leneen ñuru ko dafa bëri ci li ñuy wax ni euh, tey Thiès dafa mel day tourner ci biir APR maanaam day wuy si APR muy département bi parce que référendum bi ñu weesu tey ñan ñoo gën a xarañ ci li nga xam ne moom mooy commune euh, département bi ba tey résultat bi ngeen am ci référendum bi. waaw loolu xam nga loolu dañ ciy remercier ñëpp ba ci maire yi nekk ci département bi ñëpp lañ ciy remercier ndax bay nañ seen waar ne nañ gën a bay seen waar. département bi jàpp naa ne mokk na waaye nañu fexe ñun commune bee des te commune bi lu des as tuut la te gaa yaa ngi ci dinañ gën a accompagner te nañ ci ànd ak le DG de la poste Pape Siré Dia ba ñett coli ñetti commune euh, d' arrondissement yi ñu jël ko liggéey ko taxawal pour jàppale président Macky Sall <laughs> mais tay bu ñuy xool euh, li nga xamantene ne moom mooy jigéenu APR ñu si bëri dañuy jooy ni amuñu poste maanaam amuñu promotion am na sax yoo xamantene ne mu ngi xew euh, maanaam au conseil bi nekk na loo xamantene ne ñëpp gis nañ ni am na lu ci waaj a xew. Mm-hmm. yéen en tant que responsable du ma ne ndaw sax waaye responsable parti bi tey su ngeen di xelal président de la république ci jigéenu Thiès ak ndawu Thiès lan ngeen koy wax. man luñ koy xelal mooy moom président mooy suñu kilifa te moom xam na lépp lu xew ci dëkk bi. kon dañ koy wax nii moom buy def choix na def choix boo xamante tamit population bi soxla nañ ko bëgg nañ ko ndax jàpp naa ni am na ñoo xam xamante yàgg nañ ci parti bi te sonn sonn ci te gisaguñ seen bopp waaye nag nit ki munoo jël lu dul sa wërsëg dañuy ñaan ñëpp rek ñi ci xaj lépp yàlla na suñu borom jox leen ko ba mu nekk seen wërsëg loolu rek laay wax ci côté boobu duma ci sori. waaw voilà euh, Birame dañu ñëwaat tuuti ci euh, li nga xamante ne moom mooy euh, APR bu Thiès day bëri ay mbir yoo xam ne day am. ñu ne voilà kii wax na lii kee wax na lee mu nekk ay tontonte ay kii lan mooy waral léeg-léeg bu dara amee rek yéen ñëpp ngeen jóg taxaw euh, di wax féete fii tey suba ngeen féete fa lan moo waral loolu. non xam nga loolu parti bi ndaw ñi ni leen war a téye dañu ko téewuñ leen ko ndax jàpp naa ni ndaw da nga koy jàppale ndax boo nekkee ci parti ñu wa ndaw ñi dañ leen a war a taxaw kon tey ji taxaw boobu dañ ciy ñaan yeneen responsable yi nañ ñëw def ni. déjà de la poste Pape Siré ndax mi ngi taxawu ndaw ñi mi ngi jàppale ndaw ñi te loolu nekk na loo xamante ñun lu rafet la ndax tey jii ndaw ñi ëpp ci parti bi ñu ci am xëy moo leen jàppale kon dañ koy ñaan moom tamit mu gën a ñëwaat jàppale gën a jàppale ndaw ñi ndax xam naa ni yéeneem ci président Macky Sall ndax jàpp nañu président bu ko gën a doolee li ñu bëgg kees dinañ ko am te dañuy ñaan président na ko gën a doolee ne xamal ko ne ko Siré mi ngi jàppale ndaw ñi mi ngi jàppale femme mi ngi jàppale ñëpp di ko wax ne ko gën a dooleel pour liñ bëgg biir kees ñu am ko bu ñuy xool ci nguurub Ablaye Wade euh, ki nga xamante ne mooy président Ablaye Wade dafa jëloon ay ministre yu bëri ak ay DG ak PCA xëpp leen ci biir Thiès waaye Thiès ci nguurub Macky Sall lim fu yore ci ay ndomba tànk dañ leen di wàññi est ce que tey loolu ay gàllankoor yoo xamante ne moo tax parti bi di gën a sóox yéen ndaw ñi ngeen di gën a am jafe-jafe ba ku mel ni Siré Dia ngeen bëgg jël rek teg ko fla place boo xamante ne gis ngeen ni moo fi ne parce que moo leen wis non xam nga Siré Dia li tax ñu teg ko fi ndax moom moo def lu concret ndax politique mënoo ànd ak leader te du la wutal xëy. mais président Macky Sall. non nga xam ne waa Thiès xam nga président Macky Sall mënut a fal ay ministre ba pare ministre yi mu fal ñoo ñoo war a wutal ndaw ñi xëy def ñi si rajo ndax tey ji président mun a xam lépp tey ji bu jëlee ndaw ay ay ndombal tànk jox ko ci ñoo xamante ci dëkk bi lañ dëkk ñoo ñoo war a jàppale ndaw APR yi kon nag ñoom ñoo ñu jox ndombal tànk. nañ def ni Siré ja ni muy taxawoo président Macky Sall ni muy jàppale président Macky Sall ndax nee naa leen Siré li tax nit ñu topp ko day def lu concret ndax tey jii ndaw lu mu soxla mooy ku ko wutal xëy te tamit mun ta nekk koo xamante mooy jàppale ndax koo jox xëy mu yóbbu seen kër jàppale seeni i kooku jàpp naa ni kooku mun ta am lenn lu mu lu ko gënal ci kaw suuf kon dañuy wax ni ñeneen responsable yi nañ def ni moom ndax li muy liggéeyal président loolu la président soxla mooy jàppale ndaw ñi taxawu ndaw ñi te loolu la ndaw soxla ci parti ndaw loolu rek la soxla bu ñu ko amee liggéey bi tey boo demee ba gis ne ndaw ñëpp dañoo xiir wuti ko li mu def ak ndaw ñi la ak li muy wax xamante loo xamante mi ngi ciy taxaw président Macky Sall di ko ñaan ci loolu président ne ko gën a dooleel ba xam ne ndaw ñëpp dinañ gis seen bopp ci parti bi ci ci moom lañ koy jëlee loolu daal laa ci amoon lu may xóotu euh, ba. vacances citoyennes yi gis nañ fi euh, ab caravane maanaam euh, le ministre Mame Mbaye Niang ñëw na fii yéen ndaw APR yi ci biir ci conseil de la jeunesse ci boppam. am jëf ju am solo ju ñu jëf ci INEFJA mu nekk école boo xamante ne ñun ñi ñëpp dañ koy ndamoo parce que nekkoon nañ ci ay jafe-jafe waaye ministre bi dugal na fa lu tollu trente million yéen en tant que ndaw ñu toll ci période yoo xam ne période vacances la naka ngeen gisee caravane boobu. non caravane boobu lu ñu koy gisee lañ koy rafetlu. ndax tey Mame Mbaye loolu mu def loo xamante loo xamante ñun dañ koy rafetlu ndax ñun ñoo ñun la sagal ñu ndaw APR yi nekk ci dëkk bi ndax loolu mu def 30 millions yooyu mu fi def loolu day tax politique président Macky Sall di gën a taxaw ci biir dëkk bi kon loolu ñun suñu sag la suñu tiitaroo la dañ koo war a tiitaroo di ko sagoo xam ni président mi ngi def li mu mën mi ngi jàppale ndaw ñi mi ngi jàppale ñëpp loolu dañ ko ciy sant di ko ci gërëm ndax dafay tax ñun ñu ndaw ñi nekk ci parti bi dëkk ci dëkk bi dina tax suñu liggéey gën a mën a yomb kon loolu dañ ko ciy sant di ko ci gërëm

ndax Idrissa Seck buy wax ñun ñu ñoo war a wax ak moom ñooñu ay kilifa lañu ndax dañuy liggéeyal président te boolewuñu ñu ko wax kon nag moom bu tontoo président wala wax président lu ñun ñooy génn attaqué ko wax ceeg moom ndax ñooñu amuñu lu ñuy wax ak moom. ku mel ni mais yow bokk nga ci responsable yi njëkk taxaw euh, bi Idi waxee ci affaire Karim Wade bokk nga ci responsable yi njëkk taxaw nga ñëlul te am na ñoo xam ne ñoo ngi fi Thiès yore ay kilifteef yore ay ndombo tànk. Ah, dañu gis ne daal opposition Thiès fii ci APR moom dëgërul dëgëraay. xam nga loolu tey jii su ma ko defee. Mhm. man ci Siré Dia laa bokk loolu su ma ko defee mu mel ni ndamal Siré Dia la ndax tey jii su ma suñu nee Birane bu Siré Dia ma taxaw attaqué Idriss Seck dañ xam ñëpp dinañ xam ne man ci Siré Dia laa bokk su ma koy def man ci Siré Dia laa bokk moo tax ma def ko kon loolu tey jii man. ñëpp laa ciy woo ndax wanni ni man loolu su ma ko defee ñëpp laa yóbbaale ndax ñun parti bi moo ñu intéressé kon ku bu taxawee attaqué président Macky Sall ñun war nañoo génn ñun ndaw ñi wut suñuy mooy taxaw te loolu saa yu ñu si génnee attaqué président dañuy dem ci Siré Dia ku mu mën a mu jàppale ñu ñu taxaw ndax tamit président ñoom président lañ jox ndombal tànk te tamit dañoo war a taxaw président te moom mi ngi taxaw président Macky lu xew dinañ ci taxaw dinañ ci wax. yéen tey ban ndomb bu ngeen doon nattal bu ngeen doon jox ndomba tànk Siré Dia ci biir nguurub Macky Sall ban ndombal tànk ngeen koy takkal. non ndombal tànk bi ñu koy takkal mooy Siré Dia li mu liggéeyal président Macky Sall loolu jaratu ñu koy wax ci biir dëkk bi ndax tey kees tolloon nañ koo xamante pour nga wax président fii dafay metti ci yenn jamono ndax xeex bi bari woon na fi waaye ba mu dikkee am na lu mu fi changé te loolu ñun dañ naan président li mu li mu ko jox. loolu moom ñun soxla nañ ko nañ ko nañ ko ci bàyyi ndax loolu la gën a mën a jàppale askan bi te mu ngi ci taxawu askan bi soxlawuñu lu dul ndombal tànk bi ñu ko jox dañuy ñaan président Macky Sall xanaa nag président décidé ne ko tey jii fii dama laa soxla ci ministère bi pour nga ñëw ñu liggéey wala leen waaye ñun dañ koy ñaan li ñu ko dénk yaatu na te ndaw ñëpp a ngi ciy gis seen bopp mu ngi ciy jàppale te loolu la gën a mën a taxawee pour jàppale président Macky Sall di wax ni président na ko gën a gën koo jàppale ndax li ñu bëgg kees ñu am ko ci si rajo lañ ko yaakaaree loolu daal laa ci amul ma est que yéen tey am ngeen ay mbébétu jël li nga xamante ne moom mooy euh, ñu nekk réew mi wala PDS xëcc leen dugg leen ci parti bu APR moo gën coow li ak yi fi ne. non loolu moom ñoo ngi ci. ñoo ngi ci ndax boo seetaanee fan yee passé gis nga ralliement yi ñi ñaa ngi ñëw ndax la DG de la poste Pape Siré Dia mi ngi jëli ñoo xamante réew mi lañ bokk mu leen ñu dugal ci parti bi pour ñu dolli APR loolu ndam ndamal président Macky Sall la kon ñun saa su ne ñun tamit ñoo ngi ci loolu du xool ñoo xamante dañoo bëgg a jógee réew mi ñëw APR pour jàppale président ñu accompagner na ci ànd ceeg le directeur général de la poste Pape Siré Dia te nañ ci gën a ànd ak moom liggéey loolu pour président Macky Sall dafa am bu ñuy wax toujours dafa am jàmm joo xam ne moom moo nekk ci biir Thiès maanaam xiiroo beeg ngaay bi dafa meloon ni lu wàññeeku mais fan yi dafa mel ni xiiroo beeg ngaay bi dafa gën a taxawaat parce que gis nañu euh, ci au conseil bi ak yeneen yoo xamante ne daal ku ci nekk yaa ngi taxaw ngemb sa mbër fii bu ñu doon ngemb ñan ñoo war a ngemb ah ñi war a ngemb xam ne xam nga tey Thiès mënoo fee def dara di ci génne Pape Siré rajo DG de la poste ndax tey ji bokk na ci ñoo xamante kenn ëpp ko fi mbooloo ci dëkk bi kon nit du def dara te du ko ci génne kon nag jàpp naa ni gars yi la ñuy def kenn mënu koo def di ko ci génne te loolu sax munta ne ndax yàlla may na ko mbooloo mi may na ko ay nit yoo xamante gëm nañ ko te moom la ñuy liggéeyal kon jàpp naa ni loolu wax la rek nit du def dara te du ko ci du ko woo te du ci waxtaan ak moom. Ceesuwaay euh, yi dañu am souvent ay jafe-jafe maanaam euh, bu ñu gisee yenn xale yi génn def ay exploit ci wàllu musique wala leneen ñu gis ay responsable politique Thiès gën ay millions def ko ci ñoom gis nañ benn xale bu ndaw Alfred Mangu am BFM ci 11 ans. kenn leen lañ gisagu mu réagir ci autorité thiessoise yi mooy sa sekk moo dagg ab bourse jëmale ko ci moom responsable thiessois yi ñoom fu ñu ne. non loolu xam naa ni dafa àggagu ci Siré Dia suñu directeur. bu ci àggee ci moom. mais mais Birane loolu wër na àdduna. non da ngay déglu xam naa ni information bi fu mu war a àgg dafa àggugul man de xaw ma kan waaye man de bu ñëwee ci man dinaa leen ànd ñoom yóbbu leen ci Pape Siré Dia la Poste ndax mi ngi dafa jàppale askan gi am na ñoo xam ne sax mu ngi leen di jàppale te xamu kon tey jii bu jàppalee jàppale ku dëkk kees moom loolu ndamam la te loolu ñun loolu côté boobu bu ñëwee nañ ci taxaw jàppale ko ci ba mu am ci ndam ci côté boobu. mais est-ce que tey euh, am nañu ay nit ñoo xam ne maanaam cabinet bu stable boo xam ne lu xew rek ñoom danañ ko informer ne ko DG wala directeur wala ministre lii xew na fi lii moo si sa cër est loolu ñàkk ñu ko ñoom. non loolu xam nga loolu PSA loolu mënut a ñàkk ci politique ñàkk information loolu waaye loolu PSA kilifa gi ci boppam bu ko jotee da koy saafara. information bi da koy saafara léegi léegi léegi xam naa nag ñàkkul information bi da cee jotagul waaye bis ni ki tey na nga jàpp ni information bi jot na ci te man dinaa ko ci wax lu mu ci mën a taxaw mu ja taxaw ci ndax loolu bu ko defee kees la sagal loolu bu ko defee boppam la sagal te loolu tamit président Macky Sall loolu soxla social boobu te mi ngi koy def kon kooku war nañ koo mën a taxaw man de loolu man dinaa ko àggale ci noppam lu mu ci mën a taxaw mu taxaw ko ni ki ci ñeneen taxaw kenn du ko ci jiitu incha allah. au conseil bii ñuy war a tëral euh, Thiès am na si ñetti postes maanaam ñetti au conseil yoo xam ne war nañ dem représenté yéen waa APR euh, yéen a ngi lijjanti ci suuf ñàkk ngeen di propulser yóbbu est-ce que tey bu leen leader yi maanaam responsable bu ñu leen proposé ñoo xam ne arrangé wu leen seen taxawaay lan lay doon. non xam nga loolu responsable yi mënu ñoo proposé nañ diw nañ ñëw ci base bi ndax fii dafa am ay conseillers yoo xamante ñoo fi ne bokk APR nañ ñëw xool conseillers yi ñu woo leen ñu waxtaan seen biir ñu xool conseil des voté xool ki ñuy jiital ñu jiital ko kon amul benn responsable buy tëju ci bureau wala di def naka su dul noonu di ñëw di ko imposer nit ñi loolu mën tax ne sax te du jàll. waaw ndax Siré Dia am na conseiller koo eh, ñi responsable yi fi nekk ñi am conseiller bari nañu waaye ñoom bu ñu dem tëju ci néeg rek ñëw ne bëgg tënk teg ko ci kaw table loolu mën tax ne loolu du jàll sax nañ ñëw bàyyi base bi ñoom ñu décider seen bopp conseil yi fi nekk ñoom ñu toog waxtaan seen biir ñu décider kenn koo xamante moom la ñuy de élection 2014 loolu indi woon coow li fii ci biir Thiès ku ci nekk da nga bëggoon investir say nit nit ñi nekkoon ci base bi ne loolu du ci dal ñenn ñi génn sax def ay liste parallèle est-ce que ci au conseil bi yi ni mel dina am. non loolu gëw ma am ndax jàpp naa ni loolu ñoonu incha allah nañ ko gën a leeral nañ ñëw indi ci base bi bàyyi conseil yi ñu ñu concerté wu seen biir waxtaan seen biir xool nu ñu liggéeyee ñoom ñoom seen biir ñu xool ku ñuy jiital ñu bàyyi ko mu dem. voilà Birane émission bi jeex na say kàddu yu mujj. samay kàddu yu mujj mooy maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di gërëm tey ji Assane Mbaye sama mag. ak euh, tey Pape Sarr ñoom ñu xam ne tey jàpp naa ni sama diggante. maanaam waa kër euh, DG. ñoom ñëpp di leen gërëm ndax jàpp naa ni sama diggante ak DG ñoom joué nañ ci ay rôle yoo xamante ku ci mel ni Assane Mbaye euh, Pape Sarr Lamine Gueye ñoom joué nañ ci ay rôle yoo xamante bëgg lépp rek ñu ànd doon benn kon jàpp naa dama leen di sant di leen gërëm di leen wax ni ñu ñëpp ñoo bokk ndey ñoo bokk baay suñu ndam mooy Siré Dia am ndam te Siré Dia bu amee dam président am ndam. kon jeex na loolu mooy woon suñ tey moo nekkoon émission bi moo ñu fi dajale woon maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp wasalaam. mbokki xarit ñoon sant ñu dellu suñu émission homme politique euh, fii euh, ci Thiès info ak Thiès TV ñu ko doon defal ki nga xamante ne moom mooy euh, Birane bay nekk ñi bi de nekk ci Causerie Thiès di leen jot di daje ci beneen numéro incha allah.